li ñu waroon wax yépp wax nga ko jëfe rekk moo ci des ah loolu nag ci lay woo mbokk yi ci lay woo militan yi xam ngeen ne ñu ngi daje ak yéen di waxtaan ak yéen di gisal sunu bopp li nga xam ne noonu la réew mi doxe gisal sunu bopp li nga xam ni noonu la mbokk yi di dunde muy dundin metti ah yéen a ma gën a xam réew mi coono yi ci nekk ah, li ñuy waxtaan nag weesuwul naataange réew mi weesuwul loolu li ñuy waxtaan weesuwul yéwénal jikko li ñuy waxtaan weesuwul yéwénal dund ah loolu nag ci lañ leen di woow te ngeen ñu ci fépp fu ñu dem ci Sénégal teeru ngeen ñu tatagal ngeen ñu bàyyi ngeen seen activité yépp toog ba 3 heures 4 heures du matin di ñu xaar pour ñu ñëw saafonte ak yéen loolu sëriñ bi mu bëggon lako ko seedeel di jaajëfal mbokk yépp fep fu ñu dem mobilisation bu extraordinaire lañ fay fekk ah loolu nak ñu ciy jaajëfal ñëpp di woté waat taxaway parce que fi ñu jëm taxaway la laaj maa koy wax kérok ci Louga ah lima japp mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa defoon ak waa xaybar ba mu bëggee ubbi ji xaybar moom yonent bi muhammadul Moustapha Seydina Alioune Abi la yónni ah, waaw kon nag junj doy na boroom xel di sant ñëpp di gërëm ñëpp li ñu waroon def ñu ngi ci lu ma ne def nañ ko ba mu mat ñu ngi ci li ci des nag mooy campagne bi ubbi ñu def sunu campagne daldi di gañe te nag te nag 99 la ñu jóge wàcc 33 foofu it ah sëriñ bi président sax laa war wax monsieur le président ñu ngi ñu ngi lay gërëm bu baax ah di gërëm mbokk yi nga xam ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey bi bu baax ah di wax nag li fi des taxawaay rekk la taxawaay la ma la ma gagne soit on gagne ou on gagne. Assalamu alaikum wa rahmatullah.